yéen a ngi teewlu info 221 ñu àddu jëm ci leneen F24 mi ngi xam ne rek ne fas yéene nag saisir li di cour pénale internationale ñu gën ko xam ci CPI bi saytu lépp lu jëm euh, ci moo ko daal di xamle nee na fukki fan ak ñeent ci weeru juillet euh, fas yéene ñu amal nag euh, nag ab ndaje bu takko ci conférence de bi ñu doon amal niki démb moom Mamadou Mbodj la xamle lu ñu mel nee rek ñu daal di saisir lii di cour pénale internationale ngir ñu àddu ci crime contre l'humanité bi nga xamante ne nguurum Sénégal mi koy teg askan wi rawatina ñi féete féete ci kujje gi nee na nag ñoom pare nañu temm taxaw Mamadou Mbodj ak i naataangoom moom coordonnateur di fàttali ne ji dafa am ay yoo xamante ne dañ ko war a respecté ba ki fi nga xam ne moo fi nekk nag jël ay engagement waaye namit sege moom mi nag respecté wu ak yëlefu askan wi di tere lépp lu jëm ci wàllum manifestation waaye tamit di fitnal ak xoxotal askan wi rawatina di jiko defandikoo jaarale ko ci armée bu jamono ji nag jot nañu ñi nga xamante ñu féete ci mouvement F24 jël suñu matuwaay daal di yóbbu nguurum Sénégal ci cour pénal international mu jël ay matuwaayam fas yéene ko teg ab daan ci métit ak dal bi nga xamante ni mi ngi ko teg askan wi Mamadou Mbodj nag ak i naataangoom di xamle rek rawatina avocat yi féete ci Ousmane Sonko ak képp koo xam ne organisation compétente nga te pare nga rek ngir saisir juridiction yi ñu àddu si ngir rek ñu daal di wax ci wàllum yoon nu mu tëddeewul njaxaan fii ci Sénégal rawatina nag ñi xamante ne ñu féete ci ku jige ñoom ñoo ci gën a sonn ndaxte ba nekk nag gis nañu ay fitna ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi leen ko toog rawatina seen i naataango Ousmane Sonko mi nga xamante ne dañ ko def surveillance résidence surveillée waaye tamit bloqué ko këram ba tax na kenn mënu fa accès moom mi le mënu def dikkam rawatina nag li nga xam ne moom la doon dox daal mënatu ko loole nag ngir mu jeex bi faw rek ñii di F24 addu nag jëmale ca bitim rew ngir rek Macky Sall daal di dellu ci ginnaaw ci li nga xamante ne mi ngi koy teg askanu Sénégal